jigéen Adji Sarr citoyenne la Ousmane Sonko citoyen la. absolument un citoyen un citoyenne bu yëkkatee des accusations ngeen xam ne lii mën naa taal dëkk bi te mu leer leen ne ci biir bariwul des éléments yoo xam ne mën na sous-tendre l'accusation à part un problème moral et éthique. mais non c'est pas un problème moral. à une affaire morale et yow yow yow jàpp rek. Ah, ay principe mënoon nañu ko gaaw mënoon nañu ko ñu bañ a mais moom gaaw a jugé gaaw a jugé xam nga le temps de la justice am na ñu bëri ñu ngi nekk ci prison ba tey atte guñ leen loolu la gaaw a jugé moom c'est le juge qui détermine mais beneen bi moom jàpp ni ay bëgg a bëgg def affaire affaire philosophie ay affaire morale dañ la ne ci salon de massage xale bu amul 21 ans nga joteeg moom lu ëpp juróom yoon ci anam yu gën a ñaaw loolu nga ne nga bëgg ko simplifier à une affaire de morale et simplifier ko détaillé ko nii may mun justice moo ne justice moo ne c'est un délit justice moo wax waxu abus de abus abus de faiblesse mais abus de dossier abus de faiblesse délit mais jarul woon deux ans de procédure jarul woon tout ce que le Sénégal a perdu en 2021 et en la responsabilité à qui dinañ ci ñëwaat la responsabilité à mais procès bi procès bu amul woon juge bi du mën a requalifier les faits. mais mais mais Ablaye Sow parce que juge bi day déglu beneen bi juge bi bu procès am toll. naka lay procès juge bi di mën a requalifier les faits mais mais pourquoi nga bëgg nga bëgg a insister xam nga condamnation bi ñu condamné Ousmane Sonko benn mbir la. mais beneen mbir bi 2021 les émeutes yi fi yi fi yi fi am 14 morts 2023 plus d'une quinzaine de de de de de morts plus d'une trentaine de morts. économie bu ñu bu ñu bu ñu nekk di mettre à à genoux des sénégalais des investisseurs yu perte euh, seen seen seen seen i seen i bien le Sénégal aujourd'hui sur toutes les chaînes internationales on parle du Sénégal Sénégal qui est un modèle de démocratie qui est une référence démocratique et politique en Afrique ñu teg ñu ay gët c'est désolant c'est désolant c'est navrant c'est dramatique waaw mais déglu ba mais xaaral rek xam nga tamit boo posé question yow bu fekkee da nga nekk bëgg de nekk je peux aussi te mais li am solo. pourquoi nga bëgg a loolu. mais omettre ma ko man dama ne débat bu point bu nekk ñu débattre moi pour débattre je pour éclairer l'opinion je ne bi amee may mun a aussi da ngay fàtte que justiciable sénégalais la ñu convoqué mu ne du dem ci anam yooyu justiciable sénégalais moo oote ne au combat mortel ñëw la yéen ñëpp ngeen ànd mag tribunal yow ñaata yoon lañ la convoqué tribunal dans l' exercice de ta profession. wax nga sa mbokk yëpp nañ ñëw daje daje yow ànd ak yow wax nga Sénégal gépp ñu képp ku sant Ndour ak ku sant Faye na la topp wax nga képp ku journaliste na la topp ca France Sarkozy ñëpp xam nañu ancien président de France la am lu mu fa tekki convoqué nañ ko bu ñu koy convoqué otom lay dawal ñëw tribunal condamné nañ ko mu ngi xeex ci procédure yi ki nga xam ne nag dañ la convoqué nga ne mortel combat lay am nga ne xale yi ñëw leen na ngeen de ku ci dee sa yaay juraat loolu yëpp da nga ko bëgg a teg da côté. non teg sa côté ne taxaw ci meeting ne président de la République bu delluwul ginnaaw ci lii te président de la République du ci dara bakkanam ou sama bakkan loolu yëpp on on veut fermer les yeux sur ça. non les les yeux sur a été à l'origine de ça c'est l'État qui ci mbedd mi nañ entraver au fonctionnement correct de la justice c'est l'État du Sénégal c'est le ministre de la justice c'est le président de la République c'est Abdoulaye Sow bu fi toog faut qu'on soit juste avec nous-mêmes parce que fii loo fi wax. ëllëg da nga ko lay ak suñu borom comme que nag dañuy lay ak suñu borom nañ teg lépp ci dëgg mënuñ ñëw rek ku ci nekk di def di farfarloo man li nga xam ni état man état la état la nekk mais fu mu nga xam ne jàpp naa ne état bi juum na fa damay ne état bi juum na fa mais bu état bi juumut nañu wax ni état bi juumut ñu te atte dëgg donc li fi am ci dee yëpp ñu koy regretter ñuy masawu fa famille ñi ko bokk te li ma doon wax rek mais ñi ko ñi koy ñi oote ñi oote nañu dee ñii oote nañu dee ñii oote nañu xeex ci mbedd bi ñuy def loolu loolu xale yi doo leen ci gis doo leen doo ci gis seen njaboot. mais tey ma wax la rek tey ci 16 morts yu ñu gis doo ci gis responsable de parti ou doomu responsable de parti bu nekk ci F24. au nom de quoi on mettrait ces jeunes la au nom de quoi on mettrait ces enfants comme de la chair à canon. mais mais mais c'est absolument inacceptable et c'est irresponsable.